ginnaaw bu ma leen nuyoo sant leen ci laaj yi ngeen ñu laaj opposition senegaal dafa taxawal coalition bu mag boo xam ni mu ngi tudd Mànkoo Taxawu senegaal ndax dafa am lu jàmp lu ñu war a def mooy li nga xam ni mooy ñaawteef yi ñu yore réew mi ñu teel ko dakkal te loolu bu ñu amee majorité bu bees ci assemblée nationale dana mën a yomb loolu mooy suñu objectif bu njëkk pour que ñu taxawal majorité bu bees assemblée nationale taxawal gouvernement bu bees boo xam ni dina mën a euh, taxawal dérive yi nga xam ni ñoo am dina mën a commencer politique bu bees boo xam ni dina jublu ci saafara jafe-jafe askan wi loolu mo ñu tax a jóg loolu moo tax ñun ñëpp ñu bàyyi suñuy parti politique defar coalition bu mag pour mën am majorité bu bees à l'Assemblée nationale waaw Thierno Alassane li xam ci rek laay wax nitu degle la nit euh, ku am jom la nit ku fonk réewam la am na loo li ni lii kenn mënu ko ko te li wax ne moo ko tax a bàyyi fi mu nekkoon euh, pour jël beneen yoon loolu duma mën lu dul ànd ci ak moom ndax république ak démocratie seetlu na ne parti bi mu nekkoon jàdd na boobu yoon nekk léegi kuréel goo xam ni benn nit moo ko jiite bu nanguwul xalaatu keneen ku dul boppam te doxalin bi mu tëral nit ñi di ci mën a teg seen bët dëppoowul ak la mu waxoon ca njalbeen kon nag bu demee ba constaté loolu mu génn ca loolu di seet beneen yoon bu mu continuer mission politique am du mën lu dul félicité ko ci encouragé ko ci waaw ci problème wu Thierno loolu problème wu investiture rek la woon ndax parti yi dañoo bari parti bu nekk ñu ne la lii nga am ci list yi mom bi Dougalé ko dugalee ci listu Ndakaaru dañu dem ba ci euh, fin ba ben ci suñu partenaire yi warona indi ñaari góor ñaari jigen ñom ñu faf indi ñenti góor ndax seeni problème arbitrage interne ce qui fait que yenen partenaire yi warona a candidat ci listu Dakar ñom ñëpp finalement dañ leena imposer ñu indi jigen, li rek la mais Thierno est l'un de nos meilleurs parlementaires et les gens sont unanimes ci loolu def na liggéey bu mucc ayib ci parti bi aussi taxawaayam bi mu am ci suñu wet ci wàllu communication bi ak ci wàllu jeunesse bi amuñu dara lu ñu ko ci reproché donc suñuy jafe-jafe coalition rek moo jur le fait que nekkul ci liste bi